doo jàmbaar barki yéen a di yàlla Muhammad xool loo am lu jéggi sa tànk kii dafa amal ku dul yow sax mënoo yi déglu leen face to face bu mag war a am samedi 12 octobre ci arène nationale ci diggante général Malika ak jamtéeri bu Kayaar du xam ngeen ni combat boobu la jëndeer production jël daal di koy def drapeau Ibrahima Faye Beuz borom Lutte TV waaye mbokk yi ci fees tu face boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Farouche Papuy jàkkaarloo fa ak Caatuwaalo Gorofil jàkkaarloo fa ak Taala Gaynde Ouskara fa ak Deko Cric Karapit jàkkaarloo fa ak Boy Pire numéro 2 ak yeneen xale yi nga xamante ni war nañoo bëri ci bés boobu yëpp kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu samedi 12 octobre ci arène nationale à partir de 15 heures ko kenn loolu yëpp nag ñu war ci ànd ak Jandeer production parfois nga gis mbër xaalis intéressé ko mu doon challenge sportif financier mais nga dem nga gis mbër mu am benn challenge challenge sportif dama sentir que Balla Gaye fu mu toll nii euh, challenge sportif moo ko moo ko gën a yitteel quoi maanaam roi des arènes jël ko deux fois comme li Bombardier def loolu suñ su amee certitude que dinañ ko jox combat le juillet da koy jaral mu xaar ko comme daaw bi muy jël quatre combats c' était pas un challenge sportif c' était un challenge financier. Mm-hmm. boobu dafa soxla woon xaalis. Mm-hmm. pour tabax ay kër defaraat addunaam. Mm-hmm. moo taxoon mu jël ñeenti avance Boy Niang Bombardier. Ah, ak Eumeu Sène Gris Bordeaux ak Gris Bordeaux lim ci amoon ci xaalis defaree ko addunaam mais actuellement challenge financier bi daf koo teg si ginnaaw mu am challenge sportif maanaam nekk roi des arènes deux fois. en même temps nekk empereur moo tax su amee certitude si lu ma jàngat la mhm. su amee certitude mën a bëre ak le combat royal da koy jaral mu xaar mhm. mais le vingt le vingt quatre novembre mhm. la ñu war a xam carrément la position de Balla parce que bu dee Modou moo daan Siteu te Modou Lo confirmé que dootul bëre ak moom di nga gis le lendemain Balla Gaye jël komba soit peut-être à la face mais surtout Eumeu Sène sentir que dañ ko war a jël pour peut comme ni ko Eumeu Sène daanee deux fois ngi téem a tenté waat ba xam ndax mën na si génn mm-hmm. est-ce que aussi nekkul ne aussi avance yi comme loolu moo leen rey maanaam teel a jël avance te du am adversaire maanaam promoteur yi di la faire est-ce que loolu tamit du dem ba yàqal làmb aussi ba yàqal mbëri parce que souvent gis mbëri jël combat boo xamante tey date bi non seulement na gis nga diggante bi combat bi yàqu. Mhm. mu perte si loo xamante ni tey mënu est-ce que loolu aussi du pertement si mbër yi. waaw si mbër bu ndaw laay mën a critiquer surtout si Ada Fass. Mhm. Ada Fass warul jël ñaari avance. Mhm. ba pare amoo adversaire amoo da lu tax daanu. yow espoir nga am nga mbooloo am nañ yaakaar ci yow. boo fekkee mu neex. xam boo ba euh, jógee ci benn combat da ngay négocier sa sa combat sa sa sa cachet en mm. fonction de fi nga jógee mm. mais bu dee da ngay jël avance lu ñu lay fay du tolloo ak niveau bi nga toll bu dee si kii la parce que tey imaginel mu waxtaan ak Alboura mu naar ko fay trente millions mu njëkk bëree ak ki nga xam moom mooy Gaston Production mm. mu am ndam mu nar ko jox combat contre Balla Gaye ko négocier waat. alors que bu jëlee woon victoire ñu ne la combat ak Balla Gaye bu la neexee nga ne cent cinquante millions. boobaa Balla Gaye moo fi taxaw donc effectivement booy il faut que ñu am plan de carrière ñu xool naka la ñuy arranger seen i kii yenn managers yi parfois damay sentir que dimbaliwuñu mbër mbër bu ndaw du jël ñaari avance mm-hmm. mbër bu ndaw salin sportif financier lay boolee moo mm-hmm. mun a avancer carrière am mm-hmm. yaakaar naa mbër yi jël souvent deux à trois avance mu mel ni ay gàllankoor rek lañ ci am mbër euh, loolu moom vraiment man de su ma waaw. su ma nekkoon mbër moom. du jël avance gisum aw ma date aw xanaa mu doon mbër bi nga xamante pour nga am combat dafa jafe. waaw. mais aada comme kii bi. ak kii am toll nii. mun na xaar quoi. Mhm. avancé mun nañu xaar ba nga. xam ne parce que li demee la aussi dafa am solo tey su fekkee dañ la jël tey fay kase 30 millions 30 millions tey yàlla dogal nga am benn combat daan beneen combat bi tey sa cachet war na war a mën a doubler na tey bu ñëw ne Ada Fass dañ koy tëgg Balla Gaye tey bëgg la millions te Balla Gaye lu mu nee ne tey 100 millions yi day teg kon foofu noonu pertement lay doon ci bi kon ñu aussi yaakaar naa ne tamit war si di veiller di si xel waaw waaw ménager xool loolu xool waaw comme ni ko ñëpp waxee rek mhm. xam nga dafa euh, man mënuma di di waxaale kilo mhm. kilo kilo carotte te daw ma marché ba gis carotte bi nu mu mel mhm. mooy maanaam ngay jël avance te xamoo sa adversaire xamoo kat ngay bëreel xamoo kat ngay bëreel am la mm-hmm. moo ne ci ginnaawam mm-hmm. ndax tamit le combat euh, combat bu ne combat ne maanaam ci adversaire bi mm-hmm. la xaalis bi di dépendre kon bàyyi ba xam bu baax ki nga war a bëreel avant ngay jël avance baax na te soo jëlee avance nga bàyyi ba bëre combat bo ba mu jàll nga soog a jëlaat avance mais avance yu bëri moom xam nga ban mbër la arrangé mbër bu dem ba fin de carrière nga xam ne da ngay fortaatu rek loo jël dajale dem sa mais mbër bu bees hmm. maanaam mbër jeune boo xam ne dafa nar a def plan de carrière hmm. suy jël ay ñaari avance ñett di boole hmm. dina dem ba carrière am naxasaay te loolu yëpp loolu moo koy indi moo koy andi parce que Zarko daaw lii dal na ko diggante mag jamaïcain jamaïcain war ko tëgg moo bëri le 6 août diggante bi waa Gaston production bëggoon ko tëggal combat si bi promoteur bi bañ ba mu andi coow déggoo li ma la wax mënatul bëreel bëreelatul jamaïcain yow parce que làmb ji yàqu na bëreelatul Gaston Production mooy li ma la wax day yàq carrière day day indi li ñuy naan ennemi hmm. ci say ñi ngay liggéeyal hmm. ndax tey mënoo tëb wàccagoo ba di tëbaat hmm. loolu moom amul fenn da ngay bëre ba pare soo bëree ba pare ba xam ne tu es libre voilà su la neexee nga jëlaat beneen avance te tamit loolu CNG waroon nañ ci eh, wàccee ay daan ndax nag namit mënumaa gëm nga ne man mbër laa rek am naa avance bi dama koy dama koy jël ba leen ñëw dama koy jël. Mhm. léegi ci diggante bi est-ce que gaañu xaju ci. Mhm. na ñuy sóoraal ndogalu yàlla. Mhm. nit bëri na ndigam damm. ñaanuñu ko yàlla mu mujjee ci puus puus est-ce que kon kooku dina bëre laat. dootoo ko bëreel. kon ñaari avance. benn ci promoteur yi ñu ngi def erreur. di jaxase seen liggéey. maanaam di indi noonoo seen diggante. ñaar ci mbër bi. xamul fi mu jëm mbër bu koy def rek xamoo fi nga jëm. loolu man maa njëkkoon di ko bañ. Mhm. su nekkoon kiw euh, rëg tey layti su ma woon wala maa di seen ne ma rëg-rëg damaa bëgg mu jël avance su kiy jël avance su kiy dama koy naan non. Mhm. wala boog dina am yaqin ne. Mhm. avance bi mu jël. ak bi muy jëlaat boo booy ëpp. comme peut tey ni mu amee booy ñaa. su ko daanee. ami ama. waaw te ñoom dañoo nekk ay adversaire de taille mën nga am fii. par exemple nga am fii 40 am fii la 40 baax na. mais am fii 40 am fii 30. loolu wàññeeku la du yokku. wàññeeku la waaw du mhm. yaakaar ne am na solo doyen moom xam naa ne dañ koy libéré rek. parce que heure baa nga jot te dafa am yeneen activité yu mu war a dóori. noonu waaw maa baax a baax. macha allah di leen bëggee di kontaan si plateau bi. Mhm. di jox rendez ngoon à 21h. Mhm. xibaar set merci xibaar yaakaar naa am na solo kon ñu en rek deuxième invité bi di dugg si muy lambu démb ah ñu xaarandi ko. dugg ñu mën a euh, euh, seq moom moom tamit waxtaan bu yaatoo yaato yaatoo si li nga xamante ni tey moom moo di euh, actualité lamb waaye Maodo Faye mu mel ni tey yow tamit am na événement booy waajal waaye avant ñuy ñëw ci événement bi rek dañuy ñëw ci Maodo Faye ñiy dégg Maodo Faye di gis Maodo Faye ñi naan Maodo Faye la Gaucher Magique tey kan mooy Maodo Faye waaw Maodo mooy benn góor yàlla bu xeebu rek. Mhm. ben taalibe daal. Mhm. bu bëgg Serigne Touba. Mhm. waaw mooy Maodo. mooy Maodo ko làmb waaw làmb ji nag. Mm-hmm. maa ngi ci maa ngi ñaanal sama mag ji bu baax nag yàlla yërëm ko. Mm-hmm. fa mu tëdd yàlla oyofal suuf si kawam. Mm-hmm. Baabu Ngom. vraiment muy ku baax. ku ma taxaw woon. li ma mel tey moom moom Baabu ngoom moo tax. dëgg la moom moo wane moom moo wane àdduna bi yëpp xam ma. moo ma yoroon. moo def si man li nekk si man. dëgg la. kooku daal awma fayam ñaanal ko rek laa man yàlla na ko yàlla yërëm te njaboot gi mu fi bàyyi tamit yàlla teg si loxoom seen nekkin neexoon na seen dundin baabu maa ngi moom amuloon kii comme dafa meloon man maay taawam bu góor baabu bii ngay gis nii man maa tax mu tëgg baabu buggul woon mu tëgg daa bëggoon mu fubali mbala mu dem def jàng wala leneen mhm. mais maa ko doon fekk si école yi des fois gaari sama minicar si kaw tali bi wàcc daw tëb miir def nii seen palanteer école ba mu xool ma mën na ko yox la mm-hmm. mu tàggoo saw su suñu génnee rek ñu naani kaa rek kaye baag yëpp grand chef lañ jëm si mm-hmm. suñu nee ma tëgg làmb ba mu tas ñu àndaat ñibbi suñu yeggee grand bi waaye loo ko yóbbu waroo ko woon yóbbu mm-hmm. ma ne ko waaye yow ñun ñu doon def ba suñu jàng yàqu bàyyi ko bàyyi ko rek moom mu ngi jàng mu ngi tëgg kay mu dara mais tey gis nga ko mu ngi dem mu ngi tëggal boppam mu ngi dem di ñëw waaw noonu laa ko bëggee woon xëy na. Mm. yàlla tamit noonu la ko noonu la ko naame woon. Mm. mais baabu moom vraiment vraiment. Mm. amul ñu nag ñoom Mor Ngom suñ ko dafa réewoon. Mm-hmm. ñoom Mor Ngom yi ngay dégg ak gars yu bëri suñ kër la nekkoon. ñu nekk ay xale yu ndaw seen biir. Mm-hmm. di jàng école di wàcc des fois lamb bu amee ñu dàq ñu. Mm-hmm. ñuy dem di dem di dem ba xaw a dëgër bu ñu ñëwee ñoo leen di sajal ñooy def lii di utal leen galañ grand yi commencé ñoo adopté du ñu indi. waaw ñu dem ba nangu. waaw xam nga rek benn benn lamb am. ma anecdote la woon fii jaxaaw mhm. mooy sama premier jour ma dem làmb tëggi tëggi làmb mhm. te boobu dañ ma aaye woon dama wàcc école rek Pape Diop sa diyaande kodd mhm. dama Maodo ma ne ko waaw mu ne ma dañuy dem de yow suma dëkk bëgg naa nga ñu dem comme sama gars nga fii quoi xam nga boobu Pape Diop ma ma ne ma ko waaw ma ne sama yaay yéer génneel ma benn yére mu génneel ma yére olof boobu lu tuuti laa de ma dem ñu ñoom day faat Adama Jali foog naa ñoo ko mooy xaw ma après daal ñu dugg si comme genre Mazda yooyu. ci lañ dugg oto yooyu Mazda yooyu njagawaat yooyu. man nag Pape Diop dugal ma si ron baay baabu lay bañ mu gis ma baabang si kanam ñu dem dem dem ba njabel gaa yi wàcc di jënd ay ndox ak yooyu man ma sob sob gaa yi wàcc ma wàcc baabu ne kii lan lay ut fii <laughs> eh kaay ma dugalaat oto mu ñibbi Pape Diop na ko du dem ñu kër laa ko bu kii dama man lay seeti mhm. coow bi ne kur dina dem ak du dem Pape Diop na day dem ñu dem ñu yeggi jaxaw bu mhm. làmb bi démarré quoi biral la woon jamono boobu noonu. rek ma jékki-jékki rek génn si biti di dugg si waat rek seen kat bi. waaw bàyyi quoi ne day saw yi quoi. Mm-hmm. daw bàyyi fa tungune affaire peer quoi rek ma ñëw mm-hmm. gàddu tungune. Mm-hmm. xam nga rek ak doole bi. waaw commencé rek gaayen. di jiin gaayen bi jolli ak ca càmmoñ bi may dóor baawul tëgg booy bi daw si waat ñëw pour yéeg kooku moo mag quoi. pour ñëw jël tungune baabu na ko bàyyi ko ba si kanam bàyyi ko. jàpp naa ko. ma nekk nekk nekk ni xool bañ gars yi aj bi jaxaw hmm? waaw photo yi nii di photo woo gars yi di ma may xaalis ndeysaan ko laa xamee ne hmm. hmm. ko yàlla may ko waa ji ñi parce que booy bi indi wuñ ko sax suñu man sax aj ma si ma ak sama bi ma gàddu de ñii di photo ak man ñi may may xaalis jamono yi billet deux mille cinq cent yi njëkkee moom rek lañ ma si jox gars yi xaalis yëpp jox ma deux mille cinq cent dama lii rek <laughs> <laughs> soo demee nga jox ko sa yaay ba ba seen kër. jaxaw tey boo fa demee. Mhm. sama photo xale. Mhm. boobu noonu ma lay wax. ñu ngi ma fa demee. Mhm. loolu mooy débutement bi quoi. yaakaar naa ne am na solo noonu moo loolu mooy tax rek ñu dugal suñu waa ji laay laay càmm ah borom Ndangaan borom Kaolack borom Sénégal borom Maris. doom day wës jàmbaar ñu naan ko làmb démb maa ngi lay bëgge doo jàmbaar dama lay duma barki yéen a di yàlla Muhammad dama dama lay duma kii dama am dugul yow sax mënoo dugul yi déglu leen face to face bu mag war a am samedi 12 ci arène nationale ci diggante général Malika ak jamtéeri bu Kayaar du xam ngeen ni combat boobu la jëndeer production jël daal du koy def drapeau Ibrahima Faye Beuz borom Lutte TV waaye mbokk yi ci face tu face boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Farouche Papuy jàkkaarloo fa ak Caatuwaalo Grofil jàkkaarloo fa ak Taala Gaynde Ouskara fa ak Deko Cric Karapit jàkkaarloo fa ak Boy Pire numéro 2 ak yeneen xale yi nga xamante ni war nañoo bëri ci bés boobu yëpp kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu samedi 12 octobre ci arène nationale à partir de 15 heures ko kenn loolu yëpp nag ñu war ci ànd ak Jandeer production